en fait euh, laaj bu am solo la euh, parce que sànq maa ngi wax ni ginnaaw bi ko mission d'auditu ele euh, fichier électoral 2011 def ci rapport am ci ni mu ko waxee mooy mu am adéquation entre le le délit et l'exclusion sur les listes Sénégal dañu defaat beneen audit indépendant 2018 mm-hmm. ñoom ñu ñu ni en fait en constaté nañ recommandation bi ñu defoon 2010 2011 appliqué wuñ ko ñoom ñu defaat ko seen rapport daaw mooy dialogue bi duré deux ans mm. xam nga li ko jiitu dañu def ñaari mission parce que opposition bi ñoo exigé woon ñu def mission encore d'audit indépendant ak mission d'évaluation mission d'audit bi encore confirmé waat réaffirmé waat loolu ba pare ci diggante bi Union européenne seen mission d'observation électorale mm. ci seen rapport dañ ci def loolu wax ni il faut mu am proportionnalité entre maanaam daan bi ñu lay daan ak yow li nga def yàlla def na tax daaw seen mission de suivi électoral bu Union européenne pour saytu euh, niveau d' exécution euh, maanaam euh, recommandation yooyu man bokkoon naa ci experts yi ñu yi ñu sélectionné woon léegi nan lañ mën a waxtaanee daaw jeeg waxtaan bu yaatu ak li fi xew 2019 te li ko indi muy muy disposition yooyu et malheureusement ça fait partie des cinq points de désaccord maintenant bu ñu delloo ci du point de la doctrine foofu euh, am na divergence tey France bi problème bi amee à travers en fait benn saisine. bu ñu def conseil constitutionnel. parce que foofu dañu soulever devant la la cour de cassation. Mhm. ci cas mel nii koo xam ni dañ ko euh, euh, interdiroon droit de vote. ñu soulever ko devant euh, euh, la, la la la de cassation. Mhm. foofu selon la procédure question prioritaire de constitutionnalité ñu dem. saisir le juge constitutionnel mu ni effectivement disposition bi méngoowul ak euh, l'article 8 de la déclaration euh, des droits de l'homme qui sur la nécessité de peines mu ni kon c'est le juge conseil constitutionnel français daal ni kon dañ koy dindi ci suñu Sénégal alors du est-ce que xam nga ni disposition boobu waxuma tax bi instituer euh, la déchéance électorale définitive mais dafa méngoo bu L30 Sénégal nga xam ne 5 ans nga doon toog doo doo ñu dindi ko seen code électoral mu jeex maintenant Sénégal ñuy dem dem ba conseil constitutionnel. Mhm. bi ñu adopté le code électoral de 2021 en juillet. Mhm. l' opposition saisit le conseil constitutionnel sénégalais conseil constitutionnel moom dafa jël le contre-pied moom dafa jàpp ni disposition boobu violé wul justement ce principe. yàlla mooy sa sa xalaat daf ko violé xam nga ñoom àtte nañ juge li nga mën def rek dafa joxe sama. mais man li ma mës a gëm. c' est à dire c' est l' man sur cette question là. Mm -hmm. huit ans bind naa si une dizaine de textes. am na ti texte boo xam ne laa ko ti parce que à l'époque c'était pas numéro yi dafa changé en temps c'était L31 L32. mais xam na laa ko titré woon. pourquoi euh, les euh, les articles L31 L32 violent la la la, la constitution la constitution. Mhm. parce que dafa violer en fait ay ay fondamentaux. Mm -hmm.